1918 lañ wax ne la woon njaareem mm-hmm. waaye dafa am nag benn site internet bu ko génnee fële ca tugal mm-hmm. léegi nag ñu doon laam-laamee moom la wala du moom mm-hmm. ba démb nag xam naa gëstu yi ci mbokk yi doon def ak ya ca gën a fés day tegtal ne moom la du jëmmi foto bi sax moom laay indi ne ab question waaye jeexitali suñu mag ñi oustaz ndax yaa ngi doon nettali ba ngeen fi demee Turquie eh, dem ngeen ci barab boo xamante ne lu ne ngeen fay fekk ci ay jeexital yoo xamante ne nit ñi dañ koy seetaat muy amaat yi muy def ci ñoom ñun ah. nag fii euh, néew na nga dem Tiwaawoon ñu ne la euh, fii dañ koo def nii nga xamante ne euh, dàll yi Seex Sidaaji Maalik doon yor moo fi nekk wala satala gi wala kurus gi nit ñi am lum leen luñ ci jàngee mu nekk mbirum tourisme wala nga dem Njaareem wala nga dem Daaru Xuddoos yooyu noo koy jàngate waaw jërëjëf hmm. dafa am solo hmm. maanaam démb bi nit waaw xam nga ba demee ci Màkka hmm. dañ ci bàyyiwutoon xel waaw ba ci at yii. Mhm. ñu commencé di def ay foire. Mhm. foiru siir lañ ko tuddee. waaw foiru siira. Mhm. léegi yañ la cay wan jeexantale yu fi yonent bàyyi woon la. waaye dañ dañ ko yéex a def. dëgg la ndax dañoo jàppoon ne barkeeloog di xool ay yooyu bokkaale la. waaye fi ne toog ñu wan la ne la lii diw la. par exemple tey dem nañ fi tey kër sëñ Abdou Samad. waaw bu sëñ. Sohaybu Sohaybu. mu mu man laa wan mbubb moo xam ne mm-hmm. Serigne Touba ko doon sol mm-hmm. mu wan la ko mu ngi nii mbubb mi yooyu jeexantal yooyu mm-hmm. dafa am solo sëñ Mbàkke mm. dafa am yonent bu ñu doon wax Yuusuf Yuusuf waaw frère ya fexe ba sànk ko ndeysaan waaw frère ya mm. ñoo fexe ba sànk ko bàjjan namm ko lool mu namm ko lool ndeysaan mu yëg ci information ne baayam dafa am problème mu bët dafa jooy ba am problème mu bët bu doon tey nga ne daa cataracte peut-être dëgg léegi bi bi mu trouvé frère yi yëg ne bàyyi mi ngi dund mais dafa am cataracte bindul saafara yónnee ko déedéet wutul ay tuufaay yónnee ko dafa sumbam ne leen ishabu bi si haasa tey waaw hmm. sama mbubb mii nga xam ne moo tax sama yaram bi am sama ñàq bi hmm. yéen leen ko sama bàyyi hmm. ba ngeen demee bu leen ko wax am nangam da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ko gën a xëpp rek yaati basira allahu akbar te ngeen koy xëpp muy wér xam nga man lu may xalaat lu may wax fu toujours bu fekkee si musu alaaji yuusuf waaw waaw faj na bëti baayam mhm, ndeysaan garaam bu boobu diw lu muy def waaw garaam bu war naa mën a def lu ne c'est-à-dire da ngaa bëgg wax ne barke kon mën naa amee ba ci mbubb ma mbub mu ñu jox la dafa am sax dafa am mhm. ndeysaan dafa am cay ishabu bi xamisi haasa mm. dafa am wallaay donc sunu mag ñi yàlla yàlla fayal ñu leen te sàmm sàmm sàmm nu mooy ku ci nekk li nga fi bàyyi comme la nga yoroon hmm. loolee ay yëf la yooyu hmm. bët bi ciy tegee hmm. day xam ne kon kat mag miñ ma doon wax du ay lépp dëgg la moo fi jaar moo fi bàyyi yii wallaay yooyu de ci yi muy def la bokk lool moo tax euh, boo demee turki waxoon naa la ko dañoo benn miisa boo xam ne toll na ci la ma xam misa waaye loolu la képp la muy def ci ci ci dëkk ba. dëgg la yor na dëkk ba. dëgg la onze mille cinq cent ngay fay pour pour dugg fa. allahu akbar. sappe si day toll ni fii ak càlle. Mhm. ndeysaan. jullit ku du jullit ci waa koyam nag ñëpp ay sappe pour dëgg bi pour xool ko. est-ce que est-ce que. loolu am nañ ko de. Mhm. am nañ ko de. macha allah am nañ ko de. waaw waaw waaye nag ñun moom ni ñu koy ni mu tuddatee moo xaw a def. fi ne sunu mag ñi liñ ci am lépp buñ ko boole woon. Mhm. liñ ci am lépp nag laa wax. lépp hmm. ñu génne ko boole ko hmm. suñu musée bii ci waaw gaar bi waaw bi ñu tabax noonu waaw ñu bañ faa def rek ay ay ay ay sa yu kii ay tamaak ay fas yu wenguloog ay monument <laughs> kenn xamul <laughs> ay ku sol taxaw dégg nga <laughs> yooyu buñ ko fa defoon hmm. loola rek yor na sunum réew ndeysaan defar suñu tali yi tey loolu laa bëgg a wax masha Allah wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si ngeen a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam